secrétaire général adjoint euh, bu PASTEF directeur ancien président également du parti APE Dëggu nuyu nañ la daal sur le parti monsieur Lo waaw ah, maa ngi lay fay di nuyu mbooleem téléspectateurs yi di nuyu kilifa diine yi di ci jiital euh, sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te di nuyu sama xarit sama sëriñ di Cheikh Habib Sy sëñ Habib Sy Dabakh di nuyu également mbooleem téléspectateurs yi di nuyu sama grand euh, Cheikh Nassadi bu Keita nga xam ne euh, ànd nañu def lu bare ci politique euh, ak ci xaritoo euh, di nuyu. ah Mamadou Gueye Mamadou Gueye l'original nga xam ne ñoo bokk parcelle. véritablement di bëgg lool ci bokk ak moom plateau di nuyu mon ami Babacar bokk nañu ay plateau yu bare. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax comme commissaire ni mu ko waxee mu jëriñ askan bi. très bien wax nga ko Mamadou Gueye l'original également chargé de la vie politique ci gëm sa bopp Mamadou nuyu nañ la daal sur le plateau. maa ngi lay fay Fatou Abdou di contacter waat fii ci seen TV di nuyu Parcelles Assainies ga ma jógee. Mhm. Yoff ga ma cosaanoo. la grande coalition Gëm sa bopp avec à sa tête le futur dans un futur très proche le futur président Bougane Gueye Dany di nuyu aussi vraiment ñi nga xam ne bokk naa ñoom plateau vraiment Babacar maa ngi lay nuyu. di nuyu moo gut directeur d'école vraiment mu nekk suma xarit Biram Khoudia mais di nuyu aussi commissaire Keïta. di mhm. nuyu tous les téléspectateurs. merci beaucoup Babacar Diop également responsable des adjoints maires de Taxawu Sénégal coordonnateur national euh, de And Fal Khalifa nuyu nañ la daal sur le plateau monsieur Diop. Euh, merci Fatou Abdou maa ngi lay nuyu d' abord si invitation di la remercier si invitation bi. Mm. di nuyu mes mm. co-débatteurs. xawal jege micro bi un peu s'il vous plaît. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, di nuyu mes di nuyu mon ami. kii l'original moom mbokkab lébu bi donc moom mu ngi woote Yoff man maa ngi plateau mhm. donc ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar di la vraiment remercier bu baax a baax Fatou Abdou di nuyu ma famille politique mais camarades de la plateforme Taxawu Sénégal le président Khalifa Sall à sa alors très bien c'est très bien ni ma leen ko waxee dañuy waxtaan ci li nga xam ne moo ñeel parrainage parrainage na bu ñu ko waxee jamono ji li nekk ci biir moom moo bari dañuy koy commencer ak yow ci yow monsieur Lo euh, depuis quelques jour ay voix ñi ngi jokk di wax ci état de santé bu Ousmane Sonko ginnaaw grève de la faim boo xamante ne door na ko euh, aujourd'hui lan nga ñuy wax ci ay nouvelles ci li nga xam ne moo ñeel son état de santé mais également ci grève de la faim boobu bon euh, ma nuyu d' abord Ousmane Sonko di euh, ñaanal wér mais actuellement li ñu mën a wax mooy les informations que vous avez c' est dire au fond euh, état de santé mi ngi gën a détérioré wu ah, parce que dafa observer grève de la faim en soutien aux femmes n'est-ce pas qui sont à liberté euh, à la prison de Liberté 6 tey wax dëgg yàlla ñu ngi attirer l' attention de l' opinion nationale et internationale sur son état de santé parce que lu ne mun na ci am fondamentalement euh, mi ngi grève tey septième jour je crois alors euh, dégg mati naa ni waa Liberté 6 ñoom arrêté nañu am na ku ma ko wax ku nekk ci prison bi léegi ñu ngi ñaan yàlla également euh, état de santé mu gën a amélioré wu loolu nag responsabilité bi gouvernement bi la parce que ñoom ñoo ko denc comme je le dis souvent injustement et arbitrairement je crois que am na lu bare luñ ci dox lu ñu ci wax euh, sëriñ si aussi am na lu luñ ci dox am na luñ ci wax mais jusqu'à présent euh, euh, ñi ñuy waxal dafa mel na dégguñu lu ñuy wax wala dañu bëgg insister sur un fait bu nga xam ni véritablement Sénégal yëpp le monde entier xam nañ ni kii dañ ko tooñ te amul lu dul arme bi mu desee mooy grève de la faim. mais mais est-ce que c'est la solution est-ce que aussi mën nga ko dippee rek une seule responsabilité nga joxoñ ko ko muy état. non responsabilité bi waxuma sax état quand je parle de l'état je parle de ceux qui sont en face de nous et qui utilisent l'état parce que fondamentalement ñoom waruñu utiliser état bi mais suñu ay adversaires politiques lañu au lieu ñu yem ci politique ñu nekk seen camp ñu nekk suñu camp état bi nekk arbitre comme il le faut mais ce n'est pas ça au fond dañuy immiscé wu ci biir fonctionnement état bi di si joxe ay directives di dem ba nga xam ni dañuy véritable véritablement poursuivre un adversaire politique te dara lalu ko dara dara lu dul ragal lu ma wax sax politique ragal la parce que tout ce qu'on qu'on peut lui reprocher Ousmane Sonko c'est sa popularité mooy fu mu génn ñu dar ka et puis xam nañ ni ku jub la euh, jéem nañ ko teg ay ndëgg sërëx yu bare dara jàllul euh, tey ñu wut yeneen yu nga xam ni ba tey jàllul mais ñuy jaay doole parce que bu ñu demee ci parrainage yi loolu la bu ñu demee ci li tax ñu tëj ko loolu la bu ñu demee ci li tax muy grève de la faim loolu la mais bu demee ba nga xam ne amatul benn arme bu dul boobu mais moom la utiliser. mais mais def na ko une première fois amul résultat est-ce que aujourd'hui pression boobu mu bëgg a teg mën nañ ci xaar dara. attention je disais je pas que amul résultat. c'est quoi le résultat parce que man je suis allé à Touba voir le khalife général. oui je suis allé à Tivaouane. je suis allé à Diassane je suis allé ak une délégation à à, à mhm. ñu ñu waxtaanal ñëpp. ils étaient pour que bu bàyyee grève de la fin bi ba tane ñu bàyyi ko féexal ko delloo ko ay àqam ak yelleefam. dañ leen joxoon parce que kenn ñaanul loolu. fan ngeen jëlee garantie yooyu non non non bi ñu demee. vous avez eu des garanties sëñ sëñ Mountakha c'est ce qu'il nous avait dit. te même bi ñu delloo mu ngi woon Dakar mais bi mu delloo Touba bi ma ko woowee wala ma woo bëkk bi li mu wax mooy loolu parce que buggul. dara luy indi noonoo Sénégal te nit ki boo tëjee euh, nitam yaa ngi indi noonoo ci waa Sénégal te ñu ci tëj dafa bare sëñ Mountakha li mu wax mooy nañu libéré ñëpp il di dit bëkk déeg bi nga xam ne moom laay wax moom laa waxanteel lool la ma wax et il m'a dit mën nga ko wax fépp parce que sëñ bi loolu la wax nañu féexal Ousmane Sonko delloo ko ay droit am mais nañu libérer les détenus politiques parce que di jàpp ay nit di leen tëj dafay indi noonoo ci biir Sénégal te Sénégal xamuñu noonoo très bien alors monsieur Keita aujourd'hui gis nañu ko muy grève de la faim bi nga xam ne door na ko boobu ak léegi mi ngi bëgg a def benn ayu bés ndax dafay soutenir les femmes yi nga xam ne ñoom it dañu leen a téye ci kaso bi amuñu peut-être procès ñenn ñi kenn waxul ci ñoom détention préventive boobu ak léegi euh, lan moo tere administration pénitentiaire ou même le ministère de la justice communiqué pour que ñu xam dëggantaan lan moo nekk ci mbir mi selon